am ngeen moyen vérifier ko. koppar espèce la moo ko gën a transparent koppar espèce origine des fonds mun nga ko mun nga ko mun nga ko mun nga ko tracé. Mhm. ki def virement bi mun nga ko tracé mun nga xam ban numéro la mun nga xam ban personne moom moom numéro bii nii. tey sii nii ñu amoon tal fatal ay ni si mbirum koppar espèce li ñu mën a daanelee parti Pastef pour dissoudre ko def nañ ko bu yàgg. nga jàpp ne gars yi nekkuñu ci. ak arrestation yi Hannibal Jim en premier. xam xam nga xam nga ak euh, actionnaire yi. arrestation yi c'est ridicule parce que ku mel ni Hannibal Djim Sénégal boo ko boo ko boo ko boo ko honoré wul ah wala nga décoré ko yaa ngi dégg warloo ko dugal ci kaso. ndax koy honoré qu'est-ce qu'il a fait. déglul ma expliqué la tey jii nii ñaata nit ñoo feebar ñaata nit ñoo feebar Sénégal ñu am ay cancer wala ñoomin seen ñu war leen defaral ay cotisation nga xamante ni avant c'était cotisation dangay woo nit nga ne ko ah diw de dafa feebar du ngeen ci jàpp et tout léegi à partir de internet nga xamante ni tout le monde a accès via Copart Express tu peux vulgariser les gens ont Express ñëpp dañuy centraliser foofu seen fonds yi. Mhm. ñaata nit lañ faj si loolu noonu. avec Hannibal Jim. Oh, mais bien sûr. pas au man Hannibal Jim li ma ko yëgal. non mooy capitaine Touré euh, mooy euh, Ndeye Khady xaw ma la. mooy euh, maanaam ay nit yu jege Pastef la doon defal Copart Express. non je te non non non Copart Express mobiliser na ñu ne ma am na benn daam boo xamante ni dafa feebar mu ngi ci ay difficultés les gens n'avaient pas les moyens foofu noonu. yéen ko politiser kon. non du politiser du politisation pour xam nga tey <laughs> boo utiliser naan ay poli. loo xamante ni nous on est des sénégalais. Mhm. yaa ngi dégg tey jii nii bu ñu yëgoon ni sax koo xamante ni mu ngi APR te ñu xam ko mu nekk suñu mbokk. Mhm. ñu xam ko ñu war a mun a def collecte. travers Kopar Express. Mhm. pour ñu jàppale ko si ñu gën a gaaw comme ni ñu koy waxee express. Mhm. dañu koy def man mii di wax ak yow fi mu toll nii Kolda maa ngi fay def ay formation pour la transformation des produits locaux. Mhm. xooluma si diw APR la. wala fee la fekk wala fee la fekk. waa Kolda ñu may dégg xam nañ li may wax. donc ñun Sénégal moo ñu ñor. mais il nous reste pas beaucoup de temps ba ma ko permettre rek. parce que gars yi li ñuy ragal mooy. destination xaalis ba ngeen di collecté du ngeen ko utiliser parce que tey jii nii ñu ngi bëgg a def lien. Euh, Hannibal Jim ak ñu ñu jàppoon force spéciale yi maanaam xaalis bi ça peut servir à financer des activités yoo xam ne voilà. non mais force spéciale xam nga dañ la wax xam nga bu lay wax force spéciale ba léegi nii ba léegi nii waxuñu la dara lu leer yow. en tant que citoyen toujours en prison. Pape Mamadou Seck je le connais. Ami xaw ma nan ngi en prison moom it depuis tout ce temps. xanaa duñu leen téye noonu parce que defuñu dara pour mais Sénégal ñaata nit lañ fi téye te te defuñu dara. yow téyewuñu fi nit ndax trois émoticônes bugguñu fi inculper nit pour affaire de viol tout en sachant que ni nit kooku noonu indi na toutes les preuves sur la table yi wane ni man mii nii defuma dara mais malgré tout ñu yóbbu ko chambre criminelle xam nga wax nii day fekk da ngay nekk si réew boo xamante ni am na yaa ngi dégg réew moo xamante ni nit day taxaw fii nii mu ne ah moo Mamadou Awa daal dañ ko war a rey li dagan si moom mooy rey est-ce que xam nga ni dëkk yu mel ni Rwanda genre wax yooyu noonu ñoo ko taal. Mm-hmm. tey jii nii boo waxee rek boo demee ci plateau rek bu ñuy wax ci affaire violence ñu inverser affaire bi chaque fois ñu jiim ko waa passé pourquoi vous n'interpellez pas le parti au pouvoir par rapport a la violence bi ñu nekkee l' affaire bi nga xamante ni ñu ngi koy wax l' affaire Tim ba ñu dem jënd benn euh, euh, def lien ak benn entreprise boo xamante ni mu ngi à l'étranger mmh. mu leen di créer ay faux compte ci Facebook pour ñu nekk di saaga kilifa diine yi di jël photo Ousmane Sonko di ci def saaga kilifa diine yi mmh. ba pare ñu koy inverser naan waa Pastef ñoom ñoo ko def forme de violence boobu noonu musuma gis kenn mu wax ko ci table bi ci télé bi affaire Tim George gis ma benn plateau Sénégal fii boo xamante ni mmh. wax na ci tàllal ci

xam nga di xamal lan la nañu nañu bàyyi di bëgg a diaboliser waa waa waa Pastef ak waa Yewwi Askan Wi fii ñi fi nekk di salfaañe yo di yoon bi di def lu leen neex parce que ñu ngi def abus pouvoir ñu ngi am benn pouvoir boo xamante ñu koy exercer ci peuple bi bëgg ji utiliser abuser ko pour mën a toogaat fii nii yaa ngi dégg mhm. di di di di di def naxasu naka sudul noonu te kenn du ko wax loolu moom moom loolu loolu la ñu war a bàyyi te loolu si loolu la ñu war a duut baaraam ñu wax ko